na lekk naan def ay activité sportive am tudd yàlla ci wéetaay ah loolu ñëpp xam nañ ni dafa am fu mu lay yóbbu ci wàllu élévation spirituelle donc man je pense que ni loolu mooy message bi ñu koy jox grève de la faim bi sëñ bi réglé wul dara ay message de lutte et cetera et cetera peut-être ñi ko doon def amaana mook ñoom bokk ñu gëm-gëm laa def na ko pendant vingt six jours et cetera man ak ñii mu jàkkaarloo nii ñii maanaam sunk ne ci naxar ñoom loolu dañu ciy jubilé seen yoon nekku ci ñoom ñoom te loolu seen yoon nekku ci. te mu ngi commencé am impact ci moom. parce que li ñuy dire à grève de la faim euh, lekk naan sant yàlla te man li ma gëm Sonko bala yàgg danañ ko libéré foofu laa mën a yem. Euh, d' accord mais euh, su fekkee Ousmane sonk jamono ji mu ngi ci prison Sëñ soo hmm. leader yu bëri ci parti ñii am nañu dossier bu ñu amee liberté seen liberté c'est limité ndax ay bracelet contrôle judiciaire ñeneen ci ay maire am aussi euh, tey ñu gis ki maire bu Parcelles Assainies Jamil Sané maire bu Patte d'Oie ñoom it ñu teg leen loxo mandat de dépôt moo dal ci seen kaw euh, même si bu fekkee Ousmane sonk ba léegi bi nga xam ne def na euh, ak accès wul jugement bi ñu ko defoon par contumace mu mu mën a nekk candidat en 2024 ba fi ñu toll nii mais est-ce que loolee du am benn impact politique dissolution bi nga xam ne def nañ ko seen parti yi bu fekkee yooyu yëpp am na ba pare euh, ñu jël euh, dogal dissoudre parti bi ban impact politique la mën a am ci ñoom ci seen waajaay jëm ci présidentielle 2024. non non de toute façon dissoudre administrativement moom ku ne mën nga koo def yaa ngi dégg. Mm-hmm. te yi mooy dootoo mën def rassemblement au nom du. du parti mm-hmm. mais ça ne signifie pas que l'idéal ou bien les idéaux de passé ont été dissous. Ça ne signifie pas aussi que, ou bien c'est pas parce qu'on est en prison que finalement entité bi moom dafay naax saa yi Abdoulaye Wade que deux def na kaso. Nelson Mandela mais bëri na. bëri na ñoo xamante ne on les a privés de liberté mais on les a pas privés de leur état d'esprit de leur âme et cetera et cetera parce que même c'est dans la solitude même sax. ci ngay gën a mën a def élévation loolu ñëpp xam nañ ko. Mhm. nit ñi nga xam ne dañuy def ascétisme yëpp. di wéet di beru maanaam mu'tazilan anil majaami beru ci mbooloo yi euh, wëlis mbooloo bi boog laa bëgg a wax ñooñu ñëpp xam nañ ni maanaam wéetaay. Mhm. su dul loo xam surtout loo xamante ne bii saa à nekkul gàcce man waxuma ñi nga xam ne dañoo def ay yor cocktail molotov ñooñu waxuma seen i wax mais tey non doon na baax torop ñi nga xam ne dañ leen jàpp te ñu nekk passif fekkee ñoom loo xamante ne bii. c'est troublant wala gisuñu ko ci seen téléphone wala gisuñu ko ci loo xamante ne mën nañ ko tracer mooy ñooñu dañ leen war a bàyyi ñu dem seen yoon parce que de toute façon même bi ñu jàppee Ousmane Sonko am na ay jeune sénégalais yoo xamante ne bii dañu continuer woon di bindu sur la plateforme de Pastef nekk mais désormais ay militants engagés yaa ngi dégg mhm. léegi nag l'avenir de Pastef est lié à la à la à la détention de Ousmane Sonko parce que c'est lui qui porte projet il en même le symbole et l'incarnation Pastef ni mu juddoo dafa juddu ci contexte boo xamante ne bii contexte mën naa ni de rareté de l'emploi nga xamante ne jeunesse bi ils étaient euh, furieux mer ndax dëkk bi amul xëy ci contexte boobu mhm. la Pastef judd donc balaa ngay dissoudre Pastef da ngay fexe nooy dissoudre xale yi nga xamante ne bii dañoo ne ci chômage maanaam da ngay dissoudre le chômage ba pare boo dissoudre chômage mais yow xoolal ñaata nit ñooy ne fii. di parti Pastef sax mën na jur ay frustration. dama ne Pastef Pastef bi muy juddu c' est parce que y avait énormément de temps de de foyer de de de de de jeunes yoo xamante ne bii de foyer de frustré pourquoi mais parce que amuñu xëy ci contexte boobu la Pastef juddu 2014 yaa ngi dégg. Mhm. contexte géopolitique bi aussi tamit mondial bi économie bi jafe contexte boobu la Pastef judd loolu boo ko résoudre yaa ngi dégg ñoom seen colère boobu nag dañ ko transformer véritablement en espoir porté par un homme maanaam chaîne boobu. doo koy xëy rek ne non parti bi dagg naa ko non bi chaîne bi a brise chaîne bi xam nga mooy lan la chaîne par exemple du chômage des jeunes moom ngay njëkk a daj ba pare. seeyal ko ci acide. justement foofu sax laa bëggoon ñu. mais loolu boo ko lijjantiwul boo ko lijjantiwul xëy xëy da ngay dissoudre Pastef alors que Pastef idéal la. Mhm. Pastef c'est un projet. Pastef véritablement c'est des idéaux ah mënoo dissoudre les militants mënoo dissoudre les sympathisants mënoo dissoudre les amis mënoo dissoudre l'état d'esprit et cetera et cetera ba pare nit saa bu xasee bu bind livre. Mhm. il devient un un immortel minimum il en écrit deux. co-écrire beneen avec euh, monsieur Fofana. donc kooku. ak boo xam ne nee na mënoo fexe di liggéey. mënoo fexe fexe fexe naturellement ba du bokk ci le présent ak la postérité bien évidemment ci ci. histoire est fii ci réewum Sénégal le débat n'est pas n'est pas à niveau très bas su fekkee ne jamono bi ngi li ngay wax noonu yëpp ba léegi ñu koy dund ndaw yi xëy jafe lool euh, paj mi xaw a taggatiyam ba njàng mi noonu. au lieu que débat bi ñu tourner ko ci ci ci ci domaine boobu wàllu euh, agriculture économie xëy ndaw yeeg yu ni mel mais le débat tourne Ousmane Sonko jàpp nañu ko yóbbu nañu ko fii Juan Branco ñëw na génn est-ce que débat bi dëgg dëgg fa mu waroon a fañ ko waroon a. teg non mais débat Ousmane Sonko dañ koo jàpp loolu débat la booy c'est moo est-ce que lu euh, je veux dire est-ce que moo day dem fekk conseil des ministres décentralisé. Ousmane Sonko dem marché fii mairie Padois bu journée bu ñu xëyee la marche de Sonko la ñuy dem ah. Ousmane Sonko c'est le seul leader politique boo xamante ne ba biñ koy jàpp ba en prison dafa continuer di lutter avec ses moyens de lutte loolu mooy dëgg. c'est ça est-ce que sëñ Mansour comprendre na la parce que ce que je veux dire mooy. jamono bi au lieu que ñuy wax wax Ousmane Sonko jàpp nañ ko ñu may je comprends que tey bu ñu ko tegee loxo en tant que leader politique bi mu doon ci Sénégal ça fait débat mais est-ce que débat bi waru woon fekk jamono jile amaana Ousmane Sonko bu ñu gisee ne li ñu xam ne moom lañ koy toppee jàpp ngeen acharnement la mu bañoon ñu bañoon faa yegg mu am liberté am le débat entre moom en tant que opposant ak ñi nekk ci régime bi nekk ci sujet yi nga xam ne moom laa lay wax léegi. non non xam nga lan la sonk bi mu ñëwee li mu indaale. gaa ñi fekkuñu ko foofu moom débat bi mu bëggoon. mooy débat livresque. justement euh, foofu c'est d'où léegi nag gaa yi comme fekkuñu ko foofu moo tax lii xew nii xew. aujourd'hui am na sit yoo xamante ne Sonko moo leen doon alimentaire c'est ça la vérité aussi uh-huh. am na ñoo xamante ne dañuy def maintien nii rek mais bi ñu jàppee Sonko saa waay ñoom <laughs> journalistes yu bari saa yi Sonko da leen yàqal c'est ça la vérité c'est lui qui animait le débat politique dans sa pays loolu mooy dëgg de ku nangu leneen wala nga gis leneen loolu sa affaire la mais c'est lui de par ses activités parce que politique ñetti kese la wax la dox la ak jëf uh-huh. mu ngi doon def lépp lépp ba biñ koy jàpp à l'étape de Koungheul da doon dox no boole ko wax no voilà aujourd'hui mhm. le débat politique est naze xoolal y a rien présentement rien du tout on est on est à quelques mois des présidentielles non c'est OS qui animait l'espace politique de ce pays buy def live instantanément y a cinquante mille vues ça c'est des faits ça c'est des faits moom moo ko doon animé et de cette animation am na ñoo xam ne il est dérangé loolu mooy dëgg aussi. mais à sept mois des des présidentielles quand même on ne parle pas de pour débat programmatique entre candidats. non débat programmatique pratiquement mosu fee am. fii yaa ma neex ma mer euh, ma jàppale la dañ laa tooñ ma mer la fal la loolu kese fi mës a nekk presque les gens ne lisent pas les programmes man yaakaaroon naa président bu ne bokkatu ba mhm. remettre ñëpp en selle ñu bokk amaana doon na am débat. maa ngi doon wax sax noonu gars yi bu yóbboo ngeen bàyyi Macky Sall fi nekk nii nag comme nekk nee na nekkatul candidat bàyyi leen jàmbur on est d'accord mais malheureusement nos acteurs politiques lii lañ bëggoon yow wax ma rek y'a y'a même plus de débat tous les jours uh-huh. quelqu'un qui est en prison qui est dans son lit d'hôpital yaa ngi dégg mais jusqu'à présent on parle de lui. les gens pensaient que ni non boo xëyee ba ba fexee moo tax il faudra comprendre et mettre un lien même entre la dissolution de l'Assemblée nationale ak la dissolution de Pastef parce que ñoom bu ñu sañoon mais bu ñu dissoudre Assemblée nationale député yooyu dem moo tax dañu ko dissoudre lundi mardi euh, dañu ko dissoudre lundi mhm. yaa ngi dégg. Euh, je pense mardi ou bien le jeudi. le jeudi. le jeudi. Mhm. à l'Assemblée nationale a euh, des des des en fait les maire de Pastef noo leen def les conseils municipaux de Pastef noo leen def le gouvernement territorial de Pastef noo koy def noo koy def donc pour man ok ça a été un séisme mais dissolution bi c'est pas une solution en réalité depuis 1960 1er août 1960 ci la Mamadou Dia jëloon décret dissoudre le en fait le PAI élection municipale Ndar amoon ay xëccoo te aussi tamit PAI à l'époque mais dañu defoon benn travail de masse bu extraordinaire amoon na place boo xamante ne à Saint-Louis mu ngi tuddoon moom sa parce que ñoom ñu ngi defoon seen assemblée générale à Thiès moo tax Thiès yaa gën a nekk un fief politique à Thiès en 1957 trois ans après ñu dem élection tu as compris oui euh, je oui je pense bien 57 le septembre 57 je pense ci lañ def seen seen assemblée manifeste de 12 pages donc PA yi defoon un travail de masse comme Pastef ni mu def nii dugg fépp nekk fépp tu as compris demoon nañ ci ba Saint-Louis amoon na létt yoo xamante ne mu ngi tuddoon moom sa réew jigéen ñi doon ko létt pour wax la ne lii les gens pensaient que ni dootuñu woon dund lu mel nii mais bu dee par exemple euh, voilà da nga app def appelé à manifester ba pare mais lan la ñuy yàkkamti instruction l'affaire est en instruction mais nañ bàyyi ba cëppaandaw la s'il y a procès ñu xool ba xam loolu moo leerul ci bopp Sénégal yu bëri parce que fi nga xam ne fi lañ koy placé sous mandat de dépôt yàkkamte rek ci benn fan de dépôt tas tas tas tas tas tas tas altiné rek en le même jour ci guddi gi nga dem euh, siège am daj ay eh, eh, kii déggal di xotti ay ay ay poster mm-hmm. dégg naa même serpillère yi ñu fekkoon ci chaise bi dañ koy yóbbaale serpillère lan lañ koy doyee lan lañ koy doyee on va me dire non liquidation de patrimoine et cetera pour man àggaguñu foofu loolu juge moo ko war a loolu mooy dëgg bu ñu leen notifié peut li nga xam ne ils ont deux mois pour attaquer décision la décision au niveau de la chambre administrative de la cour euh, suprême je pense bien je pense la ñu ko war a yóbbu. Mhm. léegi nag on verra mais bon xam nga fii moom c'est l'exécutif kii gi. est-ce que Ousmane Sonko n'est pas condamné avant l'heure ci li nga xam ne moo moo moo ko yóbbu mandat d'opinion. fii daal lii bu continuer kenn dootul amati courage pour de politique te loolu c'est pas bien Macky Sall am na gis-gis mais am na ñoo xamante ne seen gis-gis mais jàpp nañ ni moo gën a euh, moo moo moo moo gën a sell gis-gisam te loolu daf ko war a nangu. loolu mooy dëgg comment kenn dootu am courage de politique. ah waaw mais bu nekkee yow dañ lay dàq nga commencé tabax dara. war a àgg ci cëppaandaw li après léegi ñu bëgg laa liquider kan mooy amati courage pour des politiques système mu Sénégal ci boppam ni muy doxee baaxul loolu ku ko waxul waxuloo dëgg le système est très mauvais système boo xamante ne day protégé kese kese kese la majorité kese la majorité mais ça c'est pas un bon système c'est pas mais chaque jour ma wax fii les affaires d'Alexandre Benalla garde rapproché bu Macron dafa def maintien de l'ordre te jàng ko mais il y a eu un scandale en France Macron était obligé de le limoger dàq ko fii pour nga mën a def njobbe da bokk ci nguur gi loolu mooy dëgg. te Sénégal pour a wax yenn yi ñu couvrir da ngay bokk ci nguur gi loolu mooy dëgg. mu mel ni jafe-jafe bu ñu am mooy. Eh. su fi mbir moo xam ne am na ñu ne déet ñu jël exemple beneen parce que le ministre garde des Sceaux dégg nañ mu ne ou bien c' est le ministre de l' intérieur si je ne m'abuse mu ne même États-Unis dafay am ay euh, euh, ñu fay dugg de façon clandestine mais su fekkee gis nañ yenn mbir yoo xamante nii mooy wane institution yi forte dëgg dëgg ñu gis ko ci yenn réew boo ko bëggee jël exemple fii ñu ne foofu bi fii daal xam nga lan mooy problème bi ok on va me ñu ngi def seen liggéey d'accord naa ci loolu mais bu dee par exemple y a un dossier politique ñaare niñ koy traité mu jur coow man pour man magistrats yi dañu war a gën a def focus yaa ngi dégg ci gën a moom seen bopp ci gën a par exemple euh, ni ñu koy waxatee ci ci ci ci ci ci ci yenn verdict yi nit ñi bañ a sentir ne véritablement dafa am nu muy doxee c'est ça le problème problème bi yëpp loolu la si au Sénégal on nous dit que les magistrats le travail d'accord et que si par exemple il y un dossier politique nit ñi am ci perception boo xamante ne bii day indi jiixi jaaxa man je pense que dañu war a gën a taxaw tem tem tem sur les dossiers politiques ba nga xamante ne bii nit ñi duñu am sensation ko ne lii benn genre euh, verdict de liquider quelqu'un la et cetera et loolu kese la nit ñi sentir mais munoo taxaw nga jël benn dossier tuddee ko viol nit ñi ne viol viol viol ca pandaw ñu génne leneen mais am na dëkk yoo xamante ne boo ko fa defoon mais sëñ bi da ngay mais tu vas nous donner des explications mais Sénégal après day mel ni dara xewul loolu mooy problème bi. tout à fait euh, alors euh, ñu avancé nag wax ci li nga xam ne mooy perspective yu présidentielle deux mille vingt quatre euh, fan yii dégg nañ ñuy wax li nga xam ne mooy assise de la grande gauche plurielle au Sénégal. yow mbir ma ba nga ko déggee ban impression nga am. non ñooñu nañ dem tooge quoi nañ dimbali nit ñi quoi ay la grande gauche plurielle loolu mooy waxu lan c'est-à-dire ñoom ce qu'ils veulent mooy ñoo nekkoon fële du temps de Senghor. ñoo nekk ak Abdou euh, Diouf du temps de Wade après ak Macky Sall kon ko nit dund loolu mooy wax la mooy la grande gauche plurielle nga fay dégg ay parti socialiste kañ la parti socialiste doon bokk ci assise boo xam ne waa gauche ñoo fay nekk. la maa ngi dégg le professeur euh, monsieur Silla il dit que